kenn ku mu doon ci ñi buy dee dana yàq boppam ci wanag bu mag wala mu yàq boppam ci wanag bu ndaw wala mu bori yàq néeg bi yëpp wala mu wocc yàq néeg bi yëpp Oumou Atiya euh, lii lu fi jaar la jóg loolu njëriñ bi mu jëriñ laa bëgg a nettali moom bu doon sang néew day fekk yenn néew yi dañoo yàq seen bopp ci cabinet ci saw wacc nañ ba yàq miir bi bori nañ ba pajaas bi yëpp yàqu na te nit ki nag dund nga ba dara desul dee nga ànd ak sa honneur waaye nga dem ba bëgg a dee nga yàq pajaas bi yëpp ci dem àll yàq lal bi yëpp ci saw miir bi yëpp nga wocc ko njëganaay bi yëpp nga bori ko ndeke ña ñeent mbir moo koy def rawat na ci jigéen la gën a bëri moo tax may laaxe biir encore leeral ko pour bu ma fi jógee dootuma ko waxaat ndax wax naa ko waxaat ko sama sago kuy dee nga ànd ak sa dignité ki lay jegeñ du la seexlu du tufli du jël ay mentalaatu di ko def ji bakkan boo demee ci morgue yi ñiy sang néew ni ñu sonne da ngay ñëw di sang nit fekk yàq na boppam yépp ci sobe bu mag bi lal ba mu tëddoon yépp saw na ko ba muy senn ci suuf miir bi yépp salte na xanaa ñu dem jënd omo raxas ko njëganaay yi ku ko saraat doo ko jël xanaa nga dem cuub ko lépp nekk na ay bori wattaqu jow turjawna fi ilallah bés bu mujj boobu li lay gàcceel daw ko bésu mujj li lay toroxal dal ko lii yàq sa bés boobu te ñii sang néew am na ñuy nettali de bañ koy sang malaanam yépp cabinet lañ ci fekk bañ koy sang di ko génne lal baa ngi siit saw néeg bi xanaa ñu penti ko lépp miir bi dafa yàqu ndeke jigéen ñi la gën a daw dana dal góor mais boo seetee ñi mu dal yëpp téeméer bu nekk daanaka juróom-ñetti fukk yi awa ah euh, jigéen lañu ñaar fukk yi mooy góor ndeke juróom yi moo koy ñeent yi moo koy waral nga nekk waaba jiba mbaa nga nekk karabaane wala nga nekk pànk mbaa nga nekk gànc boo nekkee soxna nag nga mucc ci waaba jiba mooy kan yaa ngi sëy ci kër gi waaye jabaru papa ak yaay bu sa yaay jëkkër bu wootee nga daw ñëw sukk jël ndox jox ko doo ko xool sa yaay nga njëkk koo fóotal sa borom kër mi ngi toog fële bu ne benn nga ne ñaar bu tëddee yóbbu bopp penk nga tëdd yóbbu sa bopp sow boo yëkkal say goro nga upp ba mu sedd guy góor gaa ngi ñaag rek sa jëkk mu tàng rib ba muy ubbi cax loxom bu ne lii nag nga ne ko ah, bu la neexal bàyyi ko yow noo mu ne lii mu ne fase ma bu du yow sa morom yaa ngi seel papam yaa ngi seel yaayam waaye moom seeloo def na li mu mun yépp wax na li mu am yépp xiifoo maro du sa kër du sa dara waaye bu ne lii jant la nga ne ko weer bi bu ne lii béy la nga ne ko xar la bés bu kooku ñëwee wokk boppam ci eti pàppam wala yaayam ne sama soxna si de man dama ko bëgg a yeewi nga ne boo ko ma ànd ak moom kii mooy ngeen ci jigéen ñi kii mooy waaba jiba mi ngi seel papa ak yaay te seeloo borom këram kii bu dee dafa yàq dafa yàq boppam dana kabine wala mu saw wala mu bori wala mu wocc bi yàq néeg bi yëpp ñëpp xam ne kii ndeke lii mu loon feeñal ci biti ak li nekkoon ci biir du benn lii mooy waaba jiba kon bu ñu leen waaba jiba bañ leen de ñaareel gi mooy karabaane karabaane say xaritu jëkkër bu ñu teewee nga daw gàttul leen lal basang bi di leen xolleel ay gerte di leen defal ataay sa jëkkër toog fal teg loxoom ni na cëy bu ma defaloon lii du la ko defal mukk moo tax góor ñi léegi gisoo ku judd rek bejjaaw problème yi rek la problème yi rek la waaye sama bos bi nag bokk ci de <laughs> déedéet déedéet soxna si dafay togg ba mu neex di ma jox yal na yàlla fay ko yàlla guddal fan macha allah xalaat bu ëpp dafay teela a bejjaaw nit ak ngay liggéey ci géej walla xam-xam bu dem dayoo yooyu dafay weexal nit waaye ñu bari kër boo duggee dakaar téeméeri kër boo gis juróom-ñetti fukk yëpp seen jëkkër mi ngi ci cimetière yi waaw ñaar fukki borom kër yu jigéen rek nga eh, subhanallah problème bu bari bi mënatuñ ko dékku ñu ñaan yàlla dee benn ñu dem ñu dem ñu dem jëkkër bu teewee ngay damm sa baat di jigéen jigéenal te sa jëkkër booy xam ngay xuural sa baat pour jéem koo déstabiliser mooy karabaana pànk nag mooy kan mooy sa jëkkër nga teqali kook mbokkam yépp teqali kook am di jàmmam yow kenn moom kenn mucc ci waa ba jiba mooy kan yaa ngi sëy ci kër gi waaye jabaru pàppang ak yaay bu sa yaay jëkkër bu wootee nga daw ñëw sukk jël ndox jox ko doo ko xool sa yaay nga njëkk koo fóotal sa borom kër mi ngi toog fële bu ne benn nga ne ñaar bu tëddee yóbbu bopp penk nga tëdd yóbbu sa bopp sow boo yekkal say goro nga upp ba mu sedd guy góor gaa ngi ñaag rek sa jëkk mu tàng rib ba muy wiccax loxo bu ne lii nag nga ne ko ah, bu la neexul bàyyi ko yow noo mu ne lii mu ne fase ma bu du yow sa morom yaa ngi seel papam yaa ngi seel yaayam waaye moom seeloo def na li mu mun yépp wax na li mu am yépp xiifoo maro du sa kër du sa dara waaye bu ne la lii jant la nga ne ko weer bi ba lii béy la nga ne ko xarul bés bu kooku ñëwee wokk boppam ceeti eti pàppam wala yaa ne sama soxna séddee man dama ko bëgg a yeewe nga ne boo ko yeewee ma ànd ak moom kii mooy ngeen ci jigéen ñi kii mooy waaba jiba mi ngi seel papa ak yaay te seeloo borom këram kii bu dee dafa yàq dafa yàq boppam dana cabinet wala mu saw wala mu bori wala mu wocc bi yàq néeg bi yëpp ñëpp xam ne kii ndeke lii mu doon feeñal ci biti ak li nekkoon ci biir du benn mooy waaba jiba kon bu ñu leen a bañ leen ñaaral gi mooy karabaane karabaane say xaritu jëkkër bu ñu teewee nga daw gàttandu leen lal basang bi di leen xollil ay gerte di leen defal ataay sa jëkkër toog fal teg loxoom ni na cëy bu ma defaloon lii du la ko defal mukk moo tax góor ñi léegi gisoo ku judd rek bejjaaw problème yi rek la problème yi rek la boo duggee Dakar téeméeri kër boo gis juróom-ñett fukk yëpp seen jëkkër ñu ngi ci cimetière yi waaw ñaar fukki borom kër yu jigéen rek nga eh, subhanallah problème bu bëri bi mënatuñ ko dékku ñu ñun ñaan yàlla dee benn ñu dem ñu dem ñu dem awa xariti jëkkër bu teewee ngay damm sa baat di jigéen jigéenal te sa jëkkër boo yoo xam ngay xuural sa baat pour jéem koo déstabiliser mooy karabaana pànk nag mooy kan mooy sa jëkkër nga teqali kook mbokkam yépp teqali kook am di jàmmam yow kenn moom kenn kooku taxoon na mu lay jël dé bés bu muy deree foog yàlla déshonoré ko ni mu déshonoré ay mbokk jëkkëram sa jëkkër jox la junni na jox ko sama jigéen nga jox fa ñaari téeméer li jot nga damm sa sër lii baax na ñeental mooy kan mooy pànk pànk moom mu ngi ci mbedd bi rek dañ maa ndeele dañ maa magale maa njëkk diw sa jëkkër yaram yëpp mu ngi tilim ci blancheur bi la koy yóbbu kenn ku mu doon ci ñi buy dee dana yàq boppam ci wanag bu mag wala mu yàq boppam ci wanag bu ndaw wala mu bori yàq néeg bi yëpp wala mu wocc yàq néeg bi yëpp kon nañ dellu si yàlla ni mu amee ci jigéen noonu la amee ci góor sa góor bu teewee nga may ko biyee màkk defal ko lépp te doomam yaa ngi teg pool ci boppam bi boo gisee ay moromam yu jigéen nga jënd leen ay sarbat jënd leen ay ndàngam te sa jabar nga ne la dàllam findi fer moo ci nekk kon li ma bëggoon a tudd mooy jigéen boobu dafa magoon doon jege Seydina Mohamed di xam ay problème mu këram ndax jigéen ñi daanañu yëngal kër Seydina Mohamed waaye kooku moo doon dem ci ñoom di leen waxal yonent bi li mu yenu doy na ko bu leen ko àndil ay problème kon jigéen dafa yàgg liggéey ci lislaam jigéen dafa yàgg defar dafa yàgg a baaxal